asalaamaaleykum mbokk Sénégal yéen ñi nga xam ne yéen ñi seetaan si IK News waaye nag si si Sénégal waaye nag si diaspora bi yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di ñëw rek si li nga xam ne nii mooy ndayu mbili gi ndayu mbili gi ne comme ni nga xamee mooy ne euh, présidentielle Sénégal Sénégal nag wax dëgg yàlla mu ngi bëgg a nekk réew mu doy waar réew moo xam ne bala nit ñuy voté rek wax dëgg yàlla lu coow lu ne nit dina ko si dégg loolu lu ne dana si xew ngeen ko xamee nag président Macky Sall euh, am na tweet bu mu def boo xam ne ni nee na il confirme fermement son départ euh, de ses de sa mission euh, le 2 avril donc su dee na wax li mu wax ni def na ko donc ça veut dire que ne même bu élection amee 2 juin boo mu si diggante bi en tout cas donc qui va être à la tête bi Sénégal après le 2 avril xanaa nag conseil constitutionnel ak institution yi nga xam ne yëpp texte da leen a wax ñoom ñoo war a jël ndogal pour organiser ay di si le 2 avril boobaa xanaa si lañ mën a di voter sénégalais yi tànn tànn pour mën a dem si présidentielles yooyu euh, liñ si wax nag mooy ne comme ni ngeen ko xamee 2 juin bu deen élection yi dañ ko def 2 juin xam ngeen dialogue bi ñu def noonu xam ne Macky Sall ak ay nitam entre guillemets ñi koy tàccu rek ñoo fa ndaje woon Sénégal yëpp teg seen bët euh, man li ma si jaaxal mooy ne. tabaski bu soobee borom bi 16 juin lay doon wala 17 juin léegi nag question bi may posé mooy est-ce que bu dee na premier tour bi dafa nekk 2 juin entre le premier tour ak second tour est-ce que sénégalais yi tal nañ euh, def si campagne électorale ak voté si diggante boobu 2 juin diggante tabaski euh, loolu lépp wax dëgg yàlla euh, ñun sénégalais yu bëri le peuple sénégalais li ñuy laaj depuis rek mooy ñu mën a respecter suñu calendrier électoral wala respecter li texte yi wax mooy ba nga xam ne nii vote mën a am. Euh, diggante bi ba passation de service mën si am comme ça le 2 avril président Macky Sall mu ne nag doyal na si sëkk sëkk wax dëgg yàlla mën na ñun tamit euh, sénégalais yi mën ko euh, wan ne ñoo ko gën a doyal sénégalais yu bëri en tout cas léegi nag loi amnistie bi nga xam ne nii sénégalais yu bëri ñu ngi koy dégg ku ne dégg na président Macky Sall en tout amul musta toog su réseaux sociaux yi gis ay doomu sénégalais yi dénoncé ñi ñuy jàpp di dénoncé violence policière yi di dénoncer euh, lu lu ñaaw lu bëri lu fa xew Sénégal lu musul am nervi yeeg ñaawteef yëpp wax dëgg yàlla ñëpp ngi ci teg seen bët ñu nag wax dëgg yàlla euh, musuma gis communiqué bu président Macky Sall def wala ñu def ñoom di ko ñaawtu di ñaawtu ñaawteef yooyu ñoom bu ngeen seen dégloo ku mel ne Ismaïla Madior Fall taxaw na jàkkaarloo Sénégal yëpp ne Sénégal mu détenu politique tey nag gis nañ ne Macky Sall nee na dañuy voté benn euh, loi pour amnistier pour pour def affaire lu mel noonu bon contradiction bi ak mag ñoo xam ne wala kilifa yoo xam ne dañuy jàkkaarloog seen waaw réew di wax safaan wala li ñuy gis ñëpp di gis média yi du ko wane ñëpp du ko wane. sama waxtaan bi nag ma bëgg si ñëw si euh, benn euh, discours bu ma gis bu Cheikh Tidiane Gadio ancien ministre des affaires étrangères du Sénégal sous euh, Macky sous Abdoulaye Wade defoon def si dialogue bi parce que dañ koo gis muy ba nit ñi di ko tàccu ña nekk ñëpp comme ñëpp ñoo bokk même vision. c'est normal muy ñaa muy wax ne benn rajo daf naan Macky Sall mel ne euh, da doon dénoncé daal benn rajo étranger buy étrangère buy dénoncé Macky booy buy wax daal ne Macky Sall dafa war a joxe date bi d'ici là ma xam ne lu toll na ministre affaires étrangères boo xam ne ni yow da nga yor diplomatie Sénégal fu ne ma jox exemple tey boo xoolee conflit bi am Israël ak palestinien donc je ne vois mal benn rajo boo xam ne dafa ñëw di dénoncé traitement bi ñu defal en faveur des des palestiniens wala traite li am entre euh, guerru Syrie bi mu amee gis nañ ne ñu bëri dañoo jël seen seen responsable di dénoncé euh, président syrien bi mu doon doxalee donc tey coow li nga xam ne ni moo am Sénégal président Macky Sall ñëw da annulé unilatéralement euh, votu sénégalais yi donc je crois que rajo bu mu munti doon wala média internationaux bu mu munti doon tey je pense booy dénoncé jëf yooyu nga xam ne àndut ak constitution conseil constitutionnel sax dafa jox tort Macky ne ko warul annulé présidentiel yi ndax daa jàpp date seulement jël responsabilité dañ ne dans les meilleurs délais euh, ou dans les dans les plus brefs délais dans les meilleurs délais bref donc si gàttan gàttal loi amnistie bi nag tey li si Sénégalais yu bëri mënul d'accord mooy ñaawteef yëpp bi muy am nit ñaa ngi seetaan mel ni seen nguur du mos a jeex dem nag ba seen nguur jeex nag ñu door a ñëw nag nag door a nekk nit door a yeew entre guillemets donc Sénégalais yi nga xam ne nag wax dëgg yàlla daneen seet faat ñu ñàkk seen bakkan ñi am dugg si ay kaso à tort donc xam na ne loi ku fi mun indi loi amnistie tamit li sénégalais peuple sénégalais en majorité laaj mooy ëllëg ku fi toog na nga ñëw atte eh, ba nga xam ne ni ñu xam képp ku sa loxo taq yoon teg la loxo waxuñ nag day venger wu encore une fois nii rien du tout mais réew mënu dox ba amul yoon te lii ça doit non seulement servir d'exemple mais euh, pour l'histoire la vérité sénégalais yi war nañ leen a wax képp ku tàq si mbir bi daal en tout cas war ngay rendre compte loolu nag njëriñ ñam mooy ëllëg ku fi ñëw toog doo ñëw di def lu la neex parce que vraiment li fi xew lépp dafa nekk lu garaaw a garaaw image du Sénégal yàqu na euh, Sénégal jëratul dara lii nga xam ne nii depuis des des années ñu ngi construire image d'un pays stable dem ba naan ko vitrine démocratique démocratie Sénégal en Afrique de l'Ouest extra extra gis na ni mu yàqoo si ay fen yu néew a lii nga xam ne nag président Macky Sall moom la def lu mujj di muy annulé présidentiel muy guléet ndax man moom laa moom laa tuddee président guléet wax dëgg yàlla ndax moom moom moo fi def lu kenn deful euh, ñuy wax rek nag <clears throat> ñi nga xam ne nag moom ay nitam lañ ba tax bu sénégalais yi jógee en majorité di dénoncer li fi xew ñu defe ne ñoom ñoo ñun ñoo nekk si lu dul euh, euh, ñu xam ne président Macky Sall tey moom moo yàqal boppam ndax lépp lu mu fi liggéey da ko néew sax lu positif kenn déggu fi ñuy wax bilan ay ñaawteefam rek lañ fi wax donc mu wan na rek ne vraiment euh, lii euh, je ne vois pas l'intérêt parce que moom sax boo gisee tey muy bëgg def ay amnistie leneen ak leneen pacifier l'arène politique le parce qu'on est dans une situation très grave moom il s'en est rendu compte à un mois du 2 avril de la fin de son mandat donc euh, loolu la rek en tout cas li si am solo mooy que le peuple sénégalais continue ce combat ce le digne le en tout cas le vaillant peuple les vrais républicains ce ce combat que ne euh, c'est trop facile c'est trop facile li fi xew et en même temps c'est trop grave ay quelques personnes ñëw mettre en danger tout un pays man ak ak ñeneen ak ñeneen tamit ñoo considéré na Macky Sall moom la ñu joxoon suñu sécurité jox suñu lépp et c'est vraiment de la haute ñëw annuler rek ay présidentielles lay nit moo koy baamtu toujours rek di ko waxaat fii tamit euh, baccalauréat ak examen concours bu munta am. candidat bu ñëw sa candidature say dossier carte d'identité bi wala leneen mu doon am erreur wala mu am problème booba yow rek la ñuy éliminer mais du ñëw di éliminer di annuler carrément baccalauréat wala BFM parce que y a cent yoo xam ne ni si dañoo am ay erreur loolu rek moo lay wan ne li décision boobu ñu jël annuler suñu présidentielle c'est une erreur historique c'est une c'est vraiment euh, un un putsch c'est prépa c'est vraiment un viol c'est xamu kenn xamul na mën a tuddee mais lii moom euh, loo xam ne dans les livres de l'histoire du Sénégal kenn du ko mos a fàtte di leen jaajëfal.